mafatihul bishri wal amni wal janna fi salaati wa tasliimi ala muqiimi sunna mafatihul bishri wal amni wal janna fi salaati wa tasliimi ala muqiimi sunna a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wa inni u'iizuhaa bika wa zurriyatahaa mina shaytaani rajiim rabbi a'uuzu bika min hamaasaati shayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yahduruun wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi xuril mayamin wa man ihtada bi hadihi ila yawmi din wa radiyallahu an sayqina wa rajaina wa sanadina hamid liwal islam al mujaddul akbar ashi ahmadu bamba nafana allah barakatihi wa bi kalaami asfi sudur al xawmi al muminina mughniyan an lawmi wa bi tawalifi an il xuluba man yaltamisuna al ilma fi kulli zaman wal tak fi naa kifaayatan tasorru min xabli xasti kulla ma yaduru mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mboolem mbokk yi nga xam ne yéen a safoo seen télévision Mafatihul Bichri TV dafi seetaan seen émission bu am solo bi nga xam ne mooy fajaru Mafatihul Bichri ñi ngi am mbégte bu baax a baax ginnaaw bu ñaanalee Serigne Sidi Muxtaar suñu boroom yàggal ko fi lool te wéral ko waaye di ko ñaanal Serigne Cheikh Jëmb Fall waaye di ko ñaanal Serigne Abbas Mbacke xalifa maam Thierno Ibrahima Faati waaye di ko ñaanal sunu bunt ci moom sëriñ Abdou Khoudous Mbaye sunu borom yàggal ko fi te kàttan na leen bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ak mboolem taalibe yëpp ñu ngi ñaan sunuy kàddu fekk mboolem mbokk yi nga xamante ne ñoo safoo seen télévision bii di Mafatul Bichri TV waaye di fi seetaan seen émission bu solo bii di fajal Mafatul Bichri sunuy wax fekk leen ci jàmm ak tawfiq ak saadatu daayira ni ni ma ko daan waxee saa su nekk télévision bii di Mafatul Bichri yàlla na wuyu aw turandoom Mafatih mooy caabi kon saa yoo jële sab commande tijji sab tale yàlla na nga dajeeg bishri te mooy mbég wal am na ak kóolute wal jannatu ak àjjana loolu yàlla na ko sun borom def bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam comme niñ leen ko waxee woon nag xam ngeen ni téere boobu ñu tàmbale woon muy téereb sëriñ alhaaji mbàkke moom solo boobu te mu tudd ndimbalal ku bëgg a mucc lépp di waxi sëriñ tubaa xaala lahu lahu maxtaara lahu moom lañ leen fas yéene indil ñaareelu parti bi ñaareelu parti bi nag incha allahu taala mooy ku bëgg a sell war na ko mu boole yii tabe lool gërëm yàlla lool muñ lool nuyu wax lool ñim ak lool xam ngeen ni loolu lu ci nekk sunu borom da ko digle te bëgg ku ca nekk xam ngeen ni tabe bokk na ci jikko yi nga xamante ni jikkoy jullit la gërëm yàlla gërëm yàllaat xam ngeen ni loolu warteef la muñit warteef la incha allahu taala danañ ci ñëw néewi waxit xam ngeen naka jekk yonent bi saa daf ko daan santaane te daan ko digle te mooy daan na wax ni koo xam ne gëm na sunu borom ak yonent bi saa na wax aw yiw wala mu noppi xam ngeen ni noppeet yonent bi saa salaam nee na ku ko def mucc sëriñ alhaaji mii jàngale woon na ni noppi bu dul dara di nga noppal saw làmmañ waaye di noppal ñaari malaaka yi nga xamante ne ñooy bind ñim ak tumuranke lool xam ngeen ab jullit it war na ci moom mu ñime ak tumuranke ñi mag ñàkkit lool ndax xam ngeen ni loolu euh, dafa bokk ci jikko yi nga xamante ne ab jullit da ko war a ràmboo bareb dox lool bari dox bokk na ci li nga xamante ne day tax nit ki bari xam-xam day tax nit ki bari xam-xam ku bëgg a àgg ci yàlla war naa taqoo lii mooy lan mooy néewug lekk néewug lekk xam ngeen ne ab reggaay dégg nga li ci Sëriñ Tuubaa daan wax ak néewug naan néewug naan loolu dafa bokk ci yi nga xamante ne dafay dimbali nit ki ak jaxasoo ak wax ak nelaw nga xam ne yooyu lu ci nekk ay jikko yoo xam ne rawatina murit bi yaakaar sëriñ Touba war na ci dégg bu baax a baax njàngaleem sëriñ Touba xam nga yooyu mu wax lu mel ni néewug lekk néewug lekk lu lu lu lu lu lu am njariñ la ndax boo gisee ci kanam sax dana ko soññee incha allah lu mel ni ak néewug nelaw nelaw moom xam ngeen ni képp koo xamante ne dangay nelaw lala neex lépp wóor na la wóor yàlla li nga bëgg sunu borom subhanahu wa taala néew ma di nga ko am waay dina yeex ndax nelaw nelaw lu bari ba pare bëgg am lu bari sun borom defe naa loolu <laughs> du du jàpp ni kon néew nelaw bokk na ci li nga xamante ni ku bëgg àgg ci yàlla da ko war a takkoo tey farlu ci tudd yàlla farlu ci tudd yàlla ndax tudd sunu borom subhaanahu wa taala moom dafa bokk ci li nga xamante ne nit ki su bëggee takkoo ak sunu borom subhaanahu wa taala da koo war di fàttaliku loola dinañ ci ñëw incha allahu taala ci lu am solo xam ngeen noonu ñu ko faral di waxe saa su nekk yonent bi wax na ci ay wax yu bare bare war na ku ne muy jànkoonteeg dee bala moo ñëw xam ngeen ni dee nit ki war na koy fuglu te fuglu dee mooy nokki gu ñëw nga deene ne ca des du jàll te dee di kut kon loolu mooy fuglu dee tey gaaw ci tey gaaw ci ak ndawam maanaam nit ki war naa gaawe ak ndawam sang ndaw war nga cee farlu ci jaamu yàlla ndax bis bu jàll jàll na te dootu dellu si te loo ca defut boo demee doog fa fekk te fa kullu man baadara waxtu si xari ilal huda astarax waxtal ki bari ku gaawe sang mag jëm ci ak njub boo doonee mag danga nga kon loolu nit ki war naa gaaw ci ak ndawam bala moo màggat te xam nga ne bis boo jublu bis boo bis boo weesu rek gën di dem ci ak mag looloot dana baax mbokk yi ñu jàpp ko bu baax a baax te xam ne ku bëgg àgg ci yàlla loolu war nga caa góorgóorlu tey gaaw ci ak wéram bala moo wére di xam ngeen doomu aadama bu wéree rek war ngaa góorgóorlu lépp loo war a def xam ne nit ku nekk su wéree tawat ma ngi ci kanamam kon boo wéree rek war ngaa gaaw góorgóorlu jëm ci li nga war a def lépp loo xamante ne loo war a def la te wér may la ko war nga koo def te xam ne wéree di ma nga ca kanam mooy tawat tey joxe ci yoonu yàlla boo amee bala ngaa ñàkk lépp loo am lépp loo am na nga ci sedd yàlla lépp loo am na nga ci péréfutoo jox suñu borom balaa ñàkk ñëw tey gaaw ci ak féex bala moo xat maanaam boo féexee boo fekkee yenn soxla nekkul ci yow war ngaa gaaw la nga ca mën lépp def ko bala nga xat leneen li ci topp mooy mu indi dénkaane sëriñ tubaa yu am solo dénkaane sëriñ tubaa xaadalahullahu maxtaaralahu dafa wax ne boo bëggee am daraja ju kawe da ngay jàng ba xam door a jëm ci looy jëm maanaam dara ju jukaay boo ko bëggee fa sun borom da ngay jàng ba xam la nga war a xam lépp doo la jëm ci looy jëm ndax am na fu bari fu muy wax ni na ngeen xam ni nit daa war a boole xam door a jëf maanaam euh, damaa teewlatul bayit ba waaye noonu la ko sëriñ bi waxe mooy na ngeen jiital xam door a jëf incha allahu taala daan ne te am kersa kon boo xamee ba xam li nga war a xam lépp nag door a jëf waaye na nga ca boole am kersa xam nga ni kersa bokk na ci diine kersa bokk na ci diine kon loo bari bari xam-xam même kiy jàngale moo xam lum mën a jàngale ci wàllu diine lum ko man man man man te ñu gis ni ay kersa kersa lalu ko dañu gis ni man nga day des kon boo xamee ba ba ba pare da nga caa war a boole kersa tey sant yàlla sunu borom tey jëf ngir moom foo toll del sant yàlla yàlla moo la amal ba nga amagut moo la wéral moo la amal moo la nekkal lépp moo la ko defal kon da nga koo war a sant ndax loolu nga xamante ne euh, moom sunu borom moo la ko defal te doon ku tabe tabe xam ngeen ni bokk na ci jikkoy jullit même yéefar bi tabe sax sunu borom da ko du ko yóbbu sawara kon tabe ak noppi noppi xam ngeen ni bokk na ci li nga xamante ne day nëbb ay bi doomu aadama te lewet lewet bokk na ci jikkoy jullit yi nga xam ne jullit bu nekk da nga war a sàmmonteeg moom rawante nag boo dee jàng tey muñ kon kii jàngit mënta ñàkk ci moom muy muñ ndax ku bëgg ku bëgg a mucc faw nga muñ mbir yëpp nag mooy mooy mooy muñ ci la juddoo maanaam mbur yëpp ci muñ la juddoo li ñuy wax lépp lépp lépp ku mënta muñ mënu ko bu dee jaamu yàlla da nga koy muñ ba kera sunu borom di ko neexal te bul ko yàkkamti ndax jaamu yàlla su dee da ngay jaamu yàlla rek bëgg koo yàkkamti amaana sunu borom mën na ko bañ a neexal bu dee nattu yi ci wàllu yaram wala alal nga xam ne sunu borom moo la gën a yërëm sa ñaari wayjur gën laa xam li gën ci yow ndax yàlla koo gis mu teg ko ay nattu rek na xam ne da koy darajaal mbaa mu koy wàññil ay musibaam kon loolu noonu la ko waykat waxee su ko defee nga muñ te delloo mbir yëpp ci moom subhaanahu wa te xam ne yàlla lépp lu mën a doon wa maa tasqatu min waraqatin illaa wa xa aw xob sax du wadd lu dul da koo xam kon lépp lu mën a doon yàlla mi nga xam ne moo la gën a yërëm sa sa ñaari waajur lu mën a doon rek loola ci moom la bawoo te kon lépp da ngaa war a delluwaat mbir yëpp ci moom tey ñaan mu dindi ko bu ne bu dee nattu yi dox sa digg ak nit nga xam ne sunu borom mi nga lay gis te xam na lépp wa jaalna baadukum li baadin fitnatan atasbiruuna wa kaana rabbuka basiran kon sunu borom lépp lu la teg sa digganteeg doomu aadama xam na ko bu la loola doyut nga xam ne kon gërëmoo yàlla bu fekkee wax ji la yàlla doy la kon la nga cay dégg rek mooy nga xam ne gërëmoo yàlla te mënoo def nenn ba mu jeex te waxtu wa ko sunu borom sàkkal ak suul inna kulla shay'in xalaqnaahu bi xadarin lum mën a doon noo ko bind ci ab dogal dogal ba nag ni ma ko waxee woon léegi ci émission yële jàll bu dikkee saadu ca dolliku saadu ca wàññiku am na foo xam ni am na benn waykat sëñ bay jaxate noonu la ko waxee daa wax ni loo xejj xejj du tee dee doon sagan di la wër te loo ko berndeelul sa rogo moom du ko saf kon da ngay gis ni yàlla moom lu mu xës dogal ci doomu aadama noonu rek lay demee dunduk àdduna lu gàtt la te loo fi deful doog fa fekk foofa ñi faatu liñ gën a bëgg mooy dellu siwaat àdduna donte diir su gàtt la ndax ñu mën a def lu baax lu leen di jariñ buñ delloo kon ñun ñii di dund war nañoo gaaw def lu baax man amila saalihan fa li nafsihi wa man achaa fa alayha ana nooy def boo bàyyee yiñ la tere woon ci ginnaaw danga nga jéem a dundal say waxtu ci woor ak wérd ak sikar ak xalaat ak saraxe ginnaaw ba saxalee farata yi te ñooy julli juróom yi ak natt asaka ak woor weeru koor ak aj màkka ak bare looy naafila naafila yi nii lañ koy defee ginnaaw tisbaar ak jëkk tisbaar ak jëkk tàkkusaan lu ci ne ñeenti rakk la kon bëgg na nit ki bu far bu bëggee farlu ci naafila mooy day def balaa julli tisbaar mu def ñeenti rakka def ñeenti rakkay tisbaar door defaat ñeenti rakkay naafila bu jullee balaa julli tàkkusaan mu def ñeent rakkay naafila def ñeent rakkay tàkkusaan waaye ginnaaw tàkkusaan nag deesu ci naafila ak juróom-benn rakkaa ginnaaw timis moom it lu baree bare la lu am solo la boo demee ci xuratul ayni Serigne Chouaib bi mu ngi koy bind boo demee ci mañ moo Majmahun Nurayni Serigne tubaa bind na ko fa ak lu ne toll yor-yor mooy juróom-benn juróom yoo xam yoo xam ne naafila lay doon ci naafila yor-yor ak naafila ginnaaw gee fukki rakkaa ak ñaar. boole ko safa ak witar maanaam ci guddi gi nga xam ne guddi gi kon bokk na ci naafile yu am solo yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi da koo digle woon mooy fukki rakka ak ñaar nga door a def ñaar rakkay safa doo def benn rakkam witar loolu lu baax la lu am solo la loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ko daan digle Suleymaan ibnu Daawuda alayhima salaam yaayam mas na koo wax sama doom nelaw guddi ba mu jeex day tax bu bis baa doo am dara loola nag moom la ko wax waaye jullit ñëpp la ñeel nelaw guddi ba mu jeex maanaam day tax ki koy def bu bis pénc baa du am dara ci aw yiw fa tahajjat bi layli tan kon nit ki daa war a jóg guddi taqale kook ab lalam taqale kook mboolem xeeti bànneex yëpp bu ko sangu waree mu sangu ba sell bu ko jàpp waree mu yeesal njàppam dem taxaw julli naafila ngir sun borom subhanahu wa taala am na yaari kilifa yu siiw muy im ibnu xaasim ak junaydu radiallahu anhuma ku ci ne ku baax la gént nga ko laaj ko nu mu def mu ne ko desewuma dara fi mu ne lu dul ñaar rakka yi ma daan julli yoor yor ak ñaar rakka yi ma daan julli boori njël te ñoom ñaar ku ci ne ak dundam ci lu baax la ko jeexalan xam nga ne ñaar ñaar ñooñu muy ibnu xaasim ak junaydu ñaari nit lañ yoo xam ni baax ci ñoom la dëppe woon ay nit lañ ñu daan def lu baax kon del dundal say waxtu ci woor weeru ci ci woor weer wu ne ñetti fan weer wu ne soo ko mënee saa yu teroo nanga ci woor ñetti fan ndax képp koo xam ne woor na ci weer ñetti fan mel na ni ku woor diirub jamono loolu wax yonent bi sallallahu alayhi la ak lan ak lu mel ni weeru kas di rajab lu mel ni weeru kas di rajab boo ko mënul ngay woor kas du rajabin mooy ñaar fan ak juróom-ñaar ya ak ñetti fan itam xarit mooy bokk baax naa woor ak juróom-ñeenteel ba maanaam juróom-ñeenteel ba ci tamxarit baax naa woor ak fukkeelu fanu tamxarit ak ñaar fukki fan ak juróom ñaar fukki fan ak juróom ci diggu tabaski moom it bëgg baax naa woor lool ak fukki fan ak juróom ci baraxlu mooy nistu saabaan bii dajeeg bisu màggalu daaru ba tey del dundal say waxtu ci werd xam ngeen ni werd lu am solo la rawatina werd wi nga xam ne moom la Sëriñ Tubaa joxe woon yoroon ko te mooy werdul maxuus loola nag li ci baax mooy soo ko dee boo ko dee werd nga fexe ba am ci ndigal maanaam nga xam ne koo xam ne moo ko moo ko ko joxoon wala kak ko jox sëriñ beeg ko jox wala daal muy doon loo xam ne maanaam ndigal lay doon nga jële ko fu wér ndax loola lañ ci bëgg mooy ñu bañ a dégg wérd rek jog di dugg ci wérd yoo xam ne xëy na mën nga caa sànq sa dund lu bare bari te njariñ lu du bari te loola buñ gisee xam nañ ni eh, xasiday sëriñ Tuubaa yi ak alxuraan doy na sëkk wérd ak salaatu ala nabi ak istixfaar foo tollu del sikar wala nga noppi sikar nag mooy laa ilaha illa allahu muhammadun rasulullahi salla allahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa moo gën lépp luy jóge ciw làmmañ bu fekkee julli suba nga suba ba noppi lii may bëgg a wax ay njariñ la boo jullee suba ba noppi nga wax bismillahi rahmaani rahim laa xawla wala quwata illa billahi al alil azim fukki yoon mel nga ne kuy door a juddu ci ñàkki bàkkaar bind mën na koo teewlu bismillahi rahmaani rahim laa xawla wala quwata illa billahil aliyil azimi dix fois maanaam fukki yoon mel nga ni kuy door a juddu ci ñàkki bakkaar te jàpp naa ne doomu aadama bi li muy def nga xam ne da koy musal ci ay bakkaar loola jàpp naa ne lu bari bari war na caa gën a góorgóorlu baax a baax te sun borom dana la jëñal juróom-ñaar fukki bunti balaa ak ñaar juróom-ñaar fukki balaa ak ñaar soixante-douze bunt la lay jëñal ci ay balaa yoo xam ne ba ca gën a ndaw maanaam balaa ba ca gën a ndaw mooy woppi siti xam ngeen ni siti lu day waar la wala ngaana te it du ca yam dalay boole laag juróom-ñaar fukki malaaka ñu lay jéggulul ba guddi maanaam loolu boo ko xëyee def suñu borom dalay boole soixante-dix malaaka yoo xam ni maanaam dañ lay jéggulul say bàkkaar ba keroog guddi loolu nag defe naa ne kenn ku nekk war na cee góor góorlu te xam ngeen ne loolu du suñu wax waaye nii la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba tey booy tëdd booy tëdd soo demee bay tëdd li ñuy waxee njariñ la ndax ñu bari dañ koy laaj da ngay jàng fàtte ñeenti yoon jàng xul huwallaahu ñetti yoon jàng subhaanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahi al aliyyil azim ñeenti yoon subhaanallah walhamdulillah wa laa ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahi alil azim ñeenti yoon kon nga teg ca astaghfirullahu alazim allazi laa ilaha illa huwa alhayyul qayyum moom it fukki yoon nga koy wax daa dox allahuma salli ala badri tamaam allahuma salli ala nuuri salaam allahuma salli ala miftaahi daari salaam allahuma salli ala safii fi jamii anaam mooy fukki yoon nga koy wax boo ko defee mel nga ne may nga ay miskin junni dinaar maanaam fekk nga benn miskin nga may ko junni dinaar kon loolu aw yiwu bari lu bari la mel nga ne wàcce nga ab kaamil bis boobu nga ko waxee mel nga ne wàcce nga ab kaamil mel nga ne aj nga umra nga mel nga ne jubale nga ñaari jullit ñoo xam ne dañoo féewo woon mel ne net sa àjjana bu fekkan looy jënd la jënd nga ko ba mu mat julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën lu bari sanusi yi nee na doy na sëriñub tarbiya sëriñ bi bari na lool ay téeréem yum ci taalif mel ne lu mel ne nuuru daaree ni kon soo bëggee di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man ngay jàng xasida ak nuuru daaree ni ak jaalibatul maraqib ak xasida gi ñuy wax kenzul muhtadin ak lu mel ni yeneen yeneen lu mel ni fathul xafaar ak yu bari yu mel noonu ak lu mel ni matnubul fawzayni ak lu mel ni taysirul asir nga xam ne moom day yombal ay mbir ba tey del dund del dundal say waxtu ci xalaat ndax imaam Ghazali nee na day waral xam yàlla sunu borom nit ki mën naa am ci xalaat wenn waxtu loo xam ne mën na ko am ci jaamu yàlla ak at maanaam jaam mën ngaa jaamu yàlla am at loo xam ne maanaam ci benn xalaat benn waxtu ngay xalaat am ko loo xam ne waral ngaa jaamu yàlla am at door ko mën am ni ñuy def mooy wéet fi barab di xool asamaan si ak suuf si ak géej yi ak ngelaw yi na dundal say waxtu ci saraxe ndax nee nañ bu yomal xiyaamee bañ teg ba népp maanaam ba doomu aadama yi ñëpp nekk ci njàqare siraat nekk ci kaw sawara di rëg-rëg yi day am ku woote ca kaw ni ana ñi daan lëggéeyal jullit ñi ñu ni ñoo ngi nii ñu ni leen wéy leen àjjana ci lu dul fitna joxe ci yoon yàlla moo gën lu bari ci jaamu yàlla yi te day setal ab xol di yokk wërsëg wa maa anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu bégal ab julit sarax la dox jëm ci jàkka sarax la dimbali ab julit sarax la xam ngeen ni bégal ab julit sarax la loolu loolu ko xool rek danga ko xam ndax yàlla sunu borom subhanahu wa taala lim gën a bëgg mooy kuy dimbali doomu aadama neewan na euh, jullit bi du deñ di féeteeg yàlla li feek mu ngi deñ di féeteeg mbokki jullitam aywa ba tey na ngay dundal say waxtu ci jàng alquran jàng alquranul karim boo bëggee jige sunu borom del jàng alquran su ko defee dog yi sëriñ bi daan na ko digle sëriñ bi daan na digle ñaar fukki isib ku ko man bis bu nekk wala fukki isib ak juróom wala fukki isib wala juróomi isib wata wala ba tey juróom benn isib wala sax ñett isib lii lépp ay dog la yoo xam ni sëriñ tubaa daan na ko digle te daan na ko joxe ñu di ko jàng ma baamtuwaat ko ñaar fukki isib ku ko man baax na fukki isib ak juróom fukki isib ak juróom ba tey lu mel ni juróom benn isib wala ñetti isib loolu sax bind na ko ci ab téeréem wax na ni addim tilaawatan li sil kitaabi walaw salaasatan minal ahsaabi na nga sax ci jàng téere bu tedd bi donte ñetti isib la dog boo ci mën a def dee ko def te di ko sexal naka loolu li ñuy wax subon daan na ko digle wax nañu soxna Faatija doomam moom la ko dénk moom la ko digaloon booy jàng alxuraan nag da ngaa war a toog fi barab bu laab sol lu set jublu penku bañ a wax ba noppi tey néewal maanaam ba maanaam bañ a wax loo xam ni bokkul ci li ngay li ngay def kon liñ ci jublu mooy nit ki su ko manee su tàmbalee ab dogam di jàng bala moo waxati dara dog boobu daa jeex li may mottalee mooy di di e, dellu xam le ni àdduna jeex na daanaka te sunu dund ci biir àdduna mooy jëkk a jeex àddina kon war na ku ne muy farlu tey jëf kem kàttanam tey tuub tey sàkk sarax tey balu àq maa ngi balu ñëpp àq tey baal ñëpp àq yàlla ñu yàlla yëggal te yërëm ñu bi jaaxi xaadim rasul sallallahu taala alayhi wa sallam kon mboole mbokk yi nga xam ne ñoo saxoo di seetaan seen télévision Mafatul Bichri TV ci seen émission bu am solo bi nga xam ni mooy fajaru ma Mafatul Bichri noo ngi santaat bu baax yàlla di gërëm di ñaan sunu borom subhanahu wa taala suñu wax fekk leen ci jàmm te sunu borom defal nu jàmm ak mucc ak xéewal ñu ngi ñaanal bu baax a baax mbokk yi nga xamante ne naka jekk ñoom ñoom ñooy ànd liggéey bi muy sëriñ Njaga Sekk Saalihu waaye di ko ñaanal kilifa yi nekk ci mbooleem liggéey bi yëpp ku nu tudd ak ku nu tuddul ba ki mujj ñëw ci liggéey bi di ñaan sunu borom subhaanahu wa taala mu sàmmal nu ko bi jaahi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wal tak fi nii kifaayatan tasurru min xabli xasdi kullama yaduru barkeb xaadima rasul wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mafatihul bishri wal amni wal janna fi salaati wa taslimi ala muqimi sunna mafatihul bishri wal amni wal janna fi salaati wa taslimi ala muqimi sunna